dem na cassation condamnation nekkagul lu définitive. Mhm. mbaa di ngeen dinañu fexe ba du ñu dund li ñu dundoon ak moom ci député. Mhm. nekk na candidat légalement candidat comme comme comme Macky Sall comme keneen ak keneen. ndax mën nañu xaar nag ñu dem ci ay élections yoo xam ni yu jaar yoon lay doon ñu bañ a ñu bañ a bloqué kenn bañ a indil kenn benn problème élection yi dem ci yoon parce que seen responsabilité daf ci nekk yéen état. xam nga euh, déjà nekk nekk ci kaso bi euh, nekk candidat loolu moom du lu bees ci ci mbirum Khalifa Sall. Mhm. def na ko ba nekk ci député. ah su fekkee projet bi jeexagut feeg asam feeg ñuy dem présidentiel su fekkee am na parrainage yu ko mate ah su boobaa yoon du ko tere mu nekk candidat. Mhm. amul benn problème. amul benn loolu la ñu loolu xam nga loolu dafa am solo. parce que li ñuy bañ mooy leneen loo xam ne lu ñuy parax paraxee la ci cassation enrôlé ko. pour fexee non bàyyi nga bàyyi nga Ndiaye dama bëgg nag euh, ñu ñu ñu nga noppal ma noppal sa bopp. mooy muy li may wax toujours nit ñi bu ñu bëggee noppal ñuy def yi bàyyi yàlla muy def yi fi yàlla ñun ñuy def yi fi nit. waaye yow itam ma bëgg nga def sa yëfi journaliste bàyyi nag magistrat mu def yëfi magistrat. jàpp naa ne xaaral magal rek jàpp naane ne toll wax dëgg yàlla yëf gaaw dolli ci yëf yi gaaw dama bëgg nga dolli ci man d'accord naa en tant que journaliste def yëfu journaliste bàyyi magistrat def yëfu magistrat mais dama bëgg aussi exécutif bàyyi bàyyi magistrat mu def yëfu magistrat mu def su ko defee rek kër gi naat voilà bu ñu ko defee rek kër gi nag. non non li li nga may ñaan ah. li nga may ñaan. laa ah, loolu laa leen di laajte itam bu ma la ko ñaanee laa ko ñaanee sama bopp. Mhm. mooy dama xam ne bu ñu bëggee bu ñu bëggee nopp nañ bàyyi yàlla muy def yëfi yàlla ñun nit ñuy def yëfi nit. suñu bëggee noppalu ci république bi nag itam ñu bàyyi magistrat mu def yëfi magistrat député def yëfi député euh, gouvernement def yëfi gouvernement citoyen def yëfi citoyen mhm. kon euh, wax dëgg yàlla li nga xam ne moom ci lañ toll nii mooy wuti naa yoon terewu ko ko mi ngi wuti pare ah su ko amee ci diggante bi te yoon te tëjuñu ko lu tax mënatul nekk candidat su boobaa mu nekk candidat. comme ni mu nekk woon candidat député li li li nga wax nii. mooy bu fekkente ni ay parrainage mat na te amul condamnation mën na nekk candidat est-ce que loolu du jox dëgg ñi jàpp ni révocation bi ñu ko révoqué ci maire bi teguwul ci yoon ndax teguwul ci ndax condamnation jiituwu ko non non bàyyi nga xam nga ndax condamnation jiituwu ko déedéet révocation ak condamnation dañ maanaam ngi mel ni yàlla ak yaali révocation ak condamnation mi ngi mel ni yàlla ak yaali dama lay xamal ne la euh, fii ci maire yi Ndakaaru Lamine Diack révoqué nañ ko fi bañ koy kon bañ koy révoqué jugement amul ba condamnation di am mbay Ndiaye ministre deta biñ koy révoqué fii ci maire Parcelles Assainies kenn jugé wu ko ba ba ba ba condamnation di am président de la de la république Macky Sall. ba mu rapport su ko neexoon ci suba sama limoge mu mu mu mu mais kenn du wax dara booba. booba kenn du wax dara c'est-à-dire li tax. ñuy wax mooy ah. condamné ko li tax ñuy wax mooy am ah, mooy atte ko. emprisonné ko ba pare révoqué ko. mais non parce que non non parce que ñi ngay wax ñi amu ci kenn ku dem xam nga bàyyi nga ñi ngay wax ni ñëpp ci révocation la ñu yem. li tax ñu révoqué ko. waaw mooy li mu def. léegi nag président moom li ko gënal. non lan moo tax xaar magal xaar magal rek xaar magal rek président li ko gënal. mooy ñu dem ba yoon jeex gis nga condamnation bi mujj mooy condamnation boo xam ne dafa lié ak fausse facture yi ak détournement de deniers publics yi beneen leneen luy amaat cour de cassation loolu ça portera sur le droit mais du nekk li nga les faits yi ñu koy jiiñ justice dëggal na ko ne effectivement daf doon def ay fausse facture ginnaaw justice dëggal na ko nag. monsieur yi ngay waxal te dafa am loo wax dama bëgg mu gën a laaj. te yow laa ciy dimbali sax. parce que da nga ni. bu ay parrainage am matee kenn condamné wu ko mën na nekk. mën na nekk candidat loolu mooy maam góor a jur bàyyi c'est-à-dire mooy maam góor a jur bàyyi maanaam bu fekkee ay parrainage am mat na te amul benn peine bu tee mu war a nekk candidat bu ko xañ ay droit am mais wax dëgg yàlla il sera candidat mais la ñuy wax bu fekkente ni. jox nga ma exemple non non président. jox nga ma exemple Mbaye Ndiaye. oui Mbaye Ndiaye. boo liiree décret ba ko révoqué. lii ñuy jiin xalifa lu ci bari ma nga ca. waaw taxul ñu yóbbu ko ci yoon. dañ ko révoqué mu jeex. non non non Mbaye Ndiaye kenn jiiñu ko naan daal def ay ay ay. sans waxuñu ay fausse facture ay xeeti jaay suuf lañ ko jiiñ ak ay jalgati xaalis foofa ca ca conseil municipal ba yooyu waaw léegi waaw léegi rek xaaral xaaral magal xaaral magal Mbaye Ndiaye Mbaye mhm. moom bi mu jotee rapport UGE mhm. moom moo choisir révoqué ko waaw ah. bañ ko bañ ko yóbbu tribunal Macky moom bi mu e, da koo joxee fa mbaxana doone benn mbaxana moomu nag dem na ba ne lii ñu ko jiiñ moo ko def d'accord mais mu daal di ci tiré conséquence bi mu tiré mooy Dakar boo ne bu yóbbu